làmb ji léegi mu daal di sàjj gannaaw rek des na ay semaines yu néew combat yi daal di tàmbali yenn promoteurs yi sax commencé nañu joxe seen ndat ngir face à yu mag yi bu ci mel ni kii Balla Gaye 2 Boy Niang ak yeneen ak yeneen Siteu Papa Sow ñoom ñaar tamit dinañ jàkkaarloo talaata bi ñuy dëgmal waaye ñii di waa CNG ñoom itamit ñu ngi commencé wane seen bopp ne soobu nañu ci làmb ji muy saison 2022 2023 ndaxte Bira Sène ak ay ñoñam ñoo doon daje dajeek démb axlu làmb bi rawatina waa bëre dóor kon démb ci alxames bi la ñu doon daje euh, gannaaw bi ñu dajee doon nañu waxtaan doxalin yu bees yi nga xamante ni deen ko dugal ci làmb ji Bira Sène ak vice président am bokk na ci tamit ki nga xam ni moom mooy directeur administratif bi di Ndiame Diop bokk na ci directeur technique xalifa Sow bokku na ci yi nga xam mooy yu bees ci wàllu làmb yi léegi muy combat préliminaire yi da doon def vingt cinq minutes léegi quinze minutes rek la maanaam benn cinq minutes ñu mi mu des beneen cinq minutes bu jaree prolongation ñu yokk ci cinq minutes muy quinze minutes maanaam fukki simili ak juróom ci li nga xam ne moom mooy combat yu mag yi da def quarante minutes maanaam ñaari dix minutes léegi nag dañ koy def vingt cinq minutes ñaari dix minutes la prolongation cinq minutes bu ci waree am maanaam muy ñaar fukki simili léegi ak juróom. léegi dootul nekk 40 minutes ngir lépp daal di mën a gaaw bokkut a ci ndogal yi nga xamante ni déen ko ci indi kagul yi maanaam yi nga xam ne dañuy nëbb seen kanam yi di sol ay masque di ñëw ci biir stade bira nee na ala mukk dootul amati kenn dootul dugg ci biir stade bi ku ñëw nee la identifié kanam daal fang lay def ñëpp xàmmee la ci wàll boobu tamit li nga xam ni moom mooy coach yi tamit am na beneen doxalin boo xam ne doxalin bu bees la léegi su mbër da ngay nekk su boo xamante ni da ngay jaar formation foofu ca CNG bu lutte waaye tamit booy ñëw di toog sa chaise di nga indaale serviette benn butéelu ndox ak tenue de sport moom ngay sol doo sol lu la neex léegi nag coppite bi ci am mooy formation bi nga war a jaar ca CNG pour nekk coach mbër bokk na ci tamit yeneen ni ay ndogal yoo xamante ni. teg nañ ko ci CNG li nga xam ne moom mooy démarrage yu làmb yi léegi 16h pile maanaam ñeenti waxtu bu jotee pile ñu daal di siffler combat yi combat bu mag bi 19h maanaam fukki juróom-ñaari simili bu jotee. kon mi ngi noonu balaa ñuy julli timis war nañoo bëre lii di grand combat bi moo tax ba rek am na bool loo xamante ni waa CNG ñu ngi ci déglu promoteurs yi ndaxte promoteur dañu sàkk woon ne lii di combat yi nañu ko commencé. li nga xamante ni moom mooy heure h cinq maanaam ñeenti waxtu bu tegalee ñeent fukki simili ak juróom moo gën ñu koy euh, bëre wala boog ñuy siffler 16h pile kon mi ngi noonu waa CNG nee nañu daal boobule dérogation den ko xoolaat ngir mën a tàmbali combat yi 16 heures 45 minutes au lieu de 16 heures 0 minutes kon mi ngi noonu doxalin yu bees yi nga xamante ni moo nar a ñëw ci saison bi ñuy dëgmal incha allah rabbi kon làmb ji daal nay sàjj ñu nar a gis saison bu nar a neex ak combat yu baree bari te am doole lool mu nekk ay choc.